يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن muuraay bi الحجاب mooy li nga xam ne moo قالوا war a daj ظلاما yaramam ba mu mat sëkk حالكا بين الثياب daj yaramam ba mu mat sëkk nag moom la yàlla subhanahu wa taala di waxaat ca suuratu nuur wa qul lil muminina yaxuddu min absaarihim boobu moo ubbi waaye lum ci teg wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna mu ne tamit na nga wax jigéen ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ñu nekk ñoo xam ne dañuy sajj seen xef waaye di sàmm seen pay duñu ci njaaloo ndax loolu rek la mu ne déedéet wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha bu ñu feeñal li nga xam ne moom moo di seen taar lu dul li nga xam ne moo ci feeñ loolu laa doon wax sànq ne lu dul li ci feeñ loolu ñu ne mooy xar kanam ak tikk njara loxo ci li gën a daje ci li borom xam-xam yi wax comme ni nga xamee ne Nasiru diinil Albani yi loolu la wax ni mooy xar kanam ak tikk njara loxo waaye am na ñoo xam ne dañ ne mooy jëmm ji rek ji ñuy séen kon loolu bi nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wax na ko mu ne wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna bu ñu feeñal seen taar lu dul seen i jëkkër mu lim mu lim ay nit yoo xam ne ñoo war a gis taar yooyu xañ na dañ leen di delloo incha allah ci yenn numéro yoo xam ne ay aayaat la su ngeen ci delloo ci suratu nuur di ngeen ko fekk borom bi subhanahu wa taala di ko jàngale moo xam aaya euh, 31 la ba wala boog ay aaya 60 di ngeen gis aayaat yooyu ndax waxtu bi moo ñu mayul ñuy yegg di ko jeexal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ki nga xam ne mooy asma bint abi bakr ci bi mu dugg see ci moom fekk sol na ay yére yu yaraax yére yoo xam ne dafay feeñal li mu nëbb li mu denc ci biir mu ne ko yaa asma inna almarata ida balagat almaxiid fala taxlu laha an yara minha illa hada wa hada aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam fa ashaara ila wajhi wa kaffay ñu yent bi sallallahu alayhi wa sallam bi asma duggsee te yére yi dafa yaraax mu ne ko asma jigéen bu xasee majeur commencé gis baax kenn waratul a gis ci moom lu dul lii ak lii ñu ne mu junj xar kanamam ak ñaari tikki njara loxoom kon loolu tettal la ci attey muuraay ak ni mu waree lan mooy condition yi nag léegi bëgg naa muuru ndax xam naa ne yàllaa ma ko sant waaye nan la ko yàlla bëggee yan ñoo war a daje ci muuraay bi ba mu tudd dëgg-dëgg muuraay est-ce que mooy lu ma jot rek lëmasoo ko sol ko ah essentiel mooy kanam bi ak loxo yi rek walla dafa am nu mu war a mel mbokk yi nañu bàyyi xel tomb yii di ñëw ndax yu am solo la ci sunu dund fii la ñuy mën a ràññalee xam ndax muuraay dëgg-dëgg ñu ngi koy def ni ko yàlla santaane wala boo tey ñu bari dañoo mel ni man xool ni mu leen neexee rek ak ni ñu ko bëgg a defee bi ci njëkk mooy an yakuna saatiran li badaniha kulli muuraay bi dafa war a dajale yaram bi yëpp illa mastusniya lu dul li nga xam ne moom lañ ci dindi ne bokk ci muy xar kanam tikk njara loxo lu dul loolu rek li ngay sol lépp sa yaram la war a daj waroo bàyyi fenn foo xam ne day feeñ kon muuru ñu naan la xëccal si ginnaaw ak tournel fii ak loxo beeg yooyu yëpp wala boog mu yem fii déedéet lépp lay muur tikk njara loxo ak xar kanam mu mel ni beneen bi ci topp mooy an yakuna fadfadan wasia la yasifu wala yuzhir shakla jismiha yére bi na yaatu na yaatu yaatuwaay boo xam ne du melal li nga xam ne mooy sa forme kon war na yaatu ba kenn du xam ne ah diwkat nii la formam mel loolu nag gis nañ ne tey jii càggante gu baree bare am na ci ñetteel bi mooy an yakuna saxiinan laa yashifu fala yazhiru ma taxtahu war na nekk tam lu fatt fatt fattaay bu du wone li nekk ci biiram kon muuru ñuy gis sa teewu yaram wala li nga xam ne moom nga jiital ci sa yëre yi sa biir muuru ñuy xam yow dëgg-dëgg li nga xam ne mooy takkaay yi nga sol bu boobaa oyofaayu yëre boobu ndax yaraax baaxul ci muuraay bu boobaa mataloo condition yàq nga dëppoowuloog li nga xam ne moom la la yàlla sant nga génne ko allah yakuna libaasa shuhratin fa yultifil al al indibaa yére bi waru nekk yére boo xam ne yére puukare la sol yére yére boo xam ne dafa dafa dafa dafa xumb yére boo xam ne nit ki daf koy dañ maanaam nit ñi dañ koy seetaan diw yérem ba diw yéen a ko gis ak sañseem bi te ñun jigéen ñi nag foog nañ ne li fekk ñu ngi génn te meluñu noonu rek bu boobaa yére bi day des te loolu ci biir kër la war a des allah yakuna muattira aw mutayyaban bil buxuur bil baxuur kenn waru koo jege moom jigéen bi di yëg ci yére bi mu sol même bu fattoon même bu yaatoo même bu nekkee loo xam ne lu daj la di yëg xet boo xam ne gëtt la muy parfum wala boog muy cuuraay luy gillee ci moom nga xam ne même bu yére bi nëbbee yaram bi xet gi nga xam ne mooy jóge ko ci moom yow dalay attiré loolu tamit nañ ko bàyyi xel beneen bi mooy allah yushbiha libaasal kaafiraat waroo sol yére ngay nuroo keneen ku dul jullit bu jigéen kon am na yenn col yoo xam ne jigéen moomu ko jigéenu jullit moomu ko ndax yéefar yee koy sol lu mel ni ah wax dëgg li ñu xamee yéefar yu jigéen yi veste yi ñuy sol cravate yi ñuy sol yenn modèle jupe yi ñuy sol nga xam ne ñii da nga leen di gis xam ne bokkuñu maanaam du ñu ay jullit yow nga soloo noonu ba pare daal di jël rek sa kol teg ci sa kaw yére bi warut mel noonu yére bi tamit waru nekk allah yushbah libaasa rijaal waroo sol ñuy seen ndax kee góor la wala jigéen góor la wala jigéen ba baa ngay yegg si wala boog bu kol ga nekku fa woon rek dañ naan kii moom góor la te tey gis nga koo xam ne pantalon jean mën na ko sol chemise am daal di jël kolam teg si bu boobaa lan moo la wootelee góor ndax na góor ñi solo moom nga solo beneen bi mooy allah yakuna alayhi rusum li kulli di ruuxin nga moytoo sol yére boo xam ne dafay am ay nataal rawatina nataal yoo xam ne lu am bakkan la wala boog lu am ruux loo xam ne dafa bokk ci nga xam ne jullit dañ ko ko tere mu sol ko kon yooyu nañ ko bàyyi xel nañ ko sóoraale ci li nga xam ne ay condition la yii yëpp nag mënoon nañu tudd aaya wala xadis boo xam ne da koy tettale waaye ci tënk istinbaat maanaam li ñu mën a jukkee ci aayaat yi ak xadis yi moo ñu tëralal condition yooyu ndax ki ma dendeek yaakaar naa moom mu ngi def liggéeyam minute bu ne mu yónnee ma benn feuille di wane ne li ma dese ci temps bari waaye mu mel ni kon atte nag muuraay ñu wax ne muuraay yajibu ala kulli fatatin muslima irtida al hijab inda bulughi sinni taklif bépp xale bu jigéen bépp xale bu jigéen bu majeur boo xam ne dem na ba maanaam toll na ci gis baax foofu la ñuy jàppee ku majeur wala même bu fekkee ne indisposé gul commencé na ay weenam di génn wala boog yenn ci ay cëram di màgg yenn place yi sax ka war ci ku màgg mu commencé bu boobaa kooku moom nekk na koo xam ne muuru wareef la ci moom yàlla waral na ko ci kawam te sañatu ko bàyyi te su ko defee maanaam su ko ñàkkee def bàkkaar la ci amee bu ko yàlla di xisaab bu ko yàlla jéggalul loolu moom mën na ci dajeeg mbugalu yàlla te tamit jigéenu jullit bu nekk war na koo bàyyi xel moytu ko kon incha allah dafa mel ni dañ ne nañu arrêté ba julli ba pare ñu continuer waaw bu fekkee ne nag nangu nañ ne santaane yàlla la war nañu déglu kon ni ñu ko yàlla waxee jaarale ko ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ñu war ko defee noonu bañ ko defee rek suñu bëgg-bëgg su fekkee ñu ngi ciy ut fayu yàlla su fekkee ñu ngi ciy ragal ëllëg meram ak mbugalam ndax loolu tamit lu ci am solo la ndax jaamu yàlla foofu lay wuutee ak aada nit ki mën na def lu baax mais li feek ragalul ni ah lii kat bi ma koy def dama ko def ngir jëmmu yàlla ngir mu fay ma ci ndax daf ko bëgg daje cee yërmandeem waaye dama koy moytu bu dee lu yàlla bañ la ndax ëllëg mu man maa musal ci mbugalam bu boobaa léeg-léeg nit ki mën na jëf jëfam ba pare te fekk day mujj nekk haba am mansuura ñu wax ne kon muuraay boobu dafa am nu mu war a mel ay conditions yoo xam ne ñoo ci war a daje ñu war ko remplir kon jigéenu jullit bi su toogee bay génn surtout nag ñu insister waat ni muuraay bi yàlla daf ko sant jigéen pour buy génn su fekkee ne nag tamit condition yi nekk ci biir kër gi moom mbedd bi ñoo yem ah dafay mujj tamit def même li ko yàlla sant bu doon génn ndax léegi-léeg suñu kër yi tam am nu mu mel noo xam ne góoru jàmbur yi nga taxoon ngay muuru ci bitti ñu ngi nekkaat ak yow ci biir kër gi kon bu tey it da ngay jàpp ne li la war ci bitti moo lay waraat ci biir kër gi waaye ànd ak loolu yëpp nag terewul ñu xam ne bépp toilette bépp xet gu neex bépp takkaay bépp melokaan bu rafet yàlla jigéen ñi la ko dencal ndax awaman yu nachau fil xilyati wa huwa fil xisaami xayru mubin jigéen moo tax ñuy wax taaru jigéen moo ko moom toilette dëgg-dëgg waaye nag ci biir këram ci njabootam rawatina ci wetu borom këram ak i moroomi jigéen yi jullitam mu mel ni kon attey muuraay boobu wax nañ ko ne wareef la wareef nag mooy loo xam ne soo ko defee am tuyaaba soo ko bàyyee am bàkkaar ci kan ci ki nga xam ne majeur na jigéenu jullit jànq bu dem ba nga xam ne tàmbali na gis baax wala ay signe yuy feeñ ne wane ne kii nii kat toll na léegi ci mat bu boobaa wareef la ci moom su ko deful yàlla daf ko si bindal ay bàkkaar comme bu ko defee da ciy am tuyaaba loolu nag comme niñ ko xamee tettal yi bari na ci alquran ci sunna ci li mboolee borom xam-xam yi dajale da nga gis ci alquran wax naa ne damay junj suratu nuur ci aaya fanweer ba ak benn borom bi subhanahu wa taala gis nga ba muy yëkkati kàddoom wa qulil muminina wa qulil muminaati yaghdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna ba aaya ba jeex waaye tamit ca suratul ahzab wal qawaid min annisaa illaati laa yarjuuna nikaaxan fa laysa alayhunna junaax an yadaana siyaabahunna gayra mutabarrijaatin bi ziina wa an yastaxfifna xayrun lahunna kon loolu dañ koy fekk muy yoo xam ne ay aayaat la borom bi subhanahu wa taala di ci wane ne jigéen bi dafa war a sàng cërëm daf ko war a aar daf ko war a nëbb teg tamit sax ñi nga xam ne tey buy wane taaram ci ñooñu la ko war a wane niki noonu tamit ci suratul ahzab da ngay fekk yàlla subhanahu wa taala ci aaya bi mu woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te doyoon na ci ñun succès doy ñu ndam doy ñu loo xam ne dañ ko war di tiitaroo ñun jigéen ñi mooy bi ñu defee jëf joo xam ne yàlla daf ñu boole ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxal yow yonent waxal say soxna say doom yi jigéen ak jigéenu jullit ñëpp kon adresse boobu lu ama am solo la ndigal loolu kon ku ci nekk rek nangul nga yàlla nangul nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yemul foofu ci suratul ahzab yàlla wax ni wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijaab su ngeen amatee soxla ci jigéen ñi booba ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy ay soxnaam waaye pour tamit bépp këru jigéenu jullit bu ngeen amee soxla bu leen ñëw rek dugg comme nu mu leen neexee mais na ngeen leen ko laaj ci ginnaaw kiiraay nga gis baat xijaab boobu sax dafa feeñ fasaluhunna min warai xijaab kon loolu yëpp ay tettal la tettal la ci sunna nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon toog ak njabootam toog ak ay soxnaam silmaxa ñëw abdullah ibnu ummil maktum ku nekk xamoon ne silmaxa la ñëw jigéen ñi mais am nañu mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen muuru leen sàng leen seen seen seen seen cër am na sax ñu ne ci ñiy wax ne dañu war a muuru ba daj ñu ne foofa muuru woon nañ waaye xar kanam yi lañ nëbbul woon biñ naan ko ah yonent yàlla bi ki silmaxa la moom gisul mu ne bu gisul yéen a ngi koy gis moom bu leen gisul tamit yéen a ngi koy gis kon yooyu yëpp ay tettal la ci yoo xam ne dafay dafay jàngale hijab bi ni mu waree ci ay santaane yoo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko santaane kon mu doy ñu xam ne jigéen léppam awra la jigéen léppam awra la ba mu des xar kanamam ak tikk njara loxoom loolu nag buñ jàpp ne dañuy jóg pour julli rek man ko def suñu julleewul nu ñu neex ñu mel déedéet jigéenu jullit bi bu solo xasee solo ni ko yàlla sante su julli jotee dafay kàbbar rek julli ndax remplir na condition yi mooy yi mu war a génnee noonu moom la war a mën a taxawee julli waaye ñu wax ni mboolem borom xam-xam yi muy ijmaul umma daana mënoo wax ni amul kenn ci ñoom ku mas a werante ci lool waaw léeg-léeg nga dégg sax ñuy wax naan kii wax na lii kii wax xañ na wuute bi fu mu nekk mooy ndax kanam war na feeñ ak loxo yi wala ndax lépp war a nëbb waaye ndax jigéen war na muuru moom kenn ci ñoom mësu ko werante kon ijma mboolem borom xam-xam yi ca ñi tàmbalee ca ñi jiitu ba ñi nga xam ne ñoo toppaat ci seen ginnaaw ba sunu jamono yi tey moo tax ba ci sunu réew yi léeg-léeg nga gis nit koo xam ne dafay askanale boppam ci benn kër ci këru diine yi ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñooy ñoo fi nekkoon di jàngale yore ay yoon di wane diine ñu jàpp ne ah lépp mën na nekk ba mu des muuraay wala boog muuraay bi beneen façon lay doon ndax léegi-léeg ñu tuumaal leen ci dégg koo xam ne danaan damay sellal sellal mooy lan muy dina dina ko teg dina tegoo kol gi mais du du daj il faut nopp bi feeñ il faut mu am benn lu ko wuutale daal loo xam ne daal dina wane ne moom ci kër sàngam la bokk fekk nag suñu ko gëmee dëgg-dëgg dañuy xam ne ñoom tam li ñu digle mas ko santaane kenn ngi nii di Cheikh Ahmad Bamba yal na ko yàlla yërëm dafa wax ni walan tanaali diina xatta tasturi jismaki ya zeynabu bi taxamuri maanaam yow ci wasiyatu Penda Diop boobu mu joxe doon dénk jigéen ñi ci lu bare bari seen wàllu diine daf ne ko doo am diine mukk mukk lantanaali diin doo am diine doo am diine mooy doo doon jigéenu jullit lu dul ne lan dangaa sàng say cër ndax daf ne ko dangaa danga dangaa musóoru rek déedéet bit xamuri kon muuraay la la lu dajale sa yaram loo xam ne daf ko mat sëkk remplir conditions yi nga xam ne moom la diine santaane kon loolu na ci jigéenu jullit ñëpp yeewu bu ñu ko kenn naxee léeg-léeg yaakaar naa ne weesu nañu tey ci jamonoy jigéen lu mu def ba mu neex jëkkëram rek te fekk dëppoowul ak santaan yàlla jot na yéen ay gëstukat ngeen ngeen xam ne santaane yàlla yi dafa leer nañ amul dara lu ci lënt te nit ñu baax ñëpp ci la ñu mës a tënku ci la ñu mës a jaar moo tax soo xoolee ci ñoom ci seeni kër ña leen déggal dëgg-dëgg ci seen waajur ya leen jur dañu doon soloo di nga xam ne même li fi nekkaat ginnaaw gi yàqu-yàqu la ak ay doxalin yu dëppawul ak seen jàngalin waaye du seen wax ñoom ci la ñu sukkandiku danga daan wax ne sax jigéen dëgg-dëgg ci fii ci réew mi ñu nekk lu mel ni Sénégal même bu fekkee ne mënoo wax ne dafa doon muur yaramam waaye daan na oddu ay séri séri sër ba bu dajee ku wuññeeku sax maanaam ku soluwul te ku soluwul bu boobaa mooy ku wérul koo xam ne dafa tàqali ko xelam day mën a daf koy mën a solal ba mu daj te du tere mu continuer di sàng ay cëram ay séri sër lañ doon sol sër nag yu gën yu diis sax yoo xam ne ngelaw lu ko yëkkati da ngay gis koo xam ne da doon sol ndoket tegaat ci beneen jël garaam bu teg ci yooyu yëpp kon am na lu muy jàngale mooy yiw goo xam ne amoon na ñu nekke woon ko kon daanaka bu ñu delluwaat ci sunu aada tam dafa jàngale bu baax a baax jigéen bi yiw ñu wax ne kon li tiis tey li metti te di daw yaramu bépp jigéenu jullit mooy bu ñu demee ba am jigéen ñoo xam ne dëgmal nañu ci bëgg seen diine ak di ko gëstu waaye nag ñu jàpp ne muuraay gi lu simple rek la mën a doon maanaam loo mënta jël rek teg ko sa bopp baax na ba léeg-léeg sax yow li ngay posé question bi ngay posé sa bopp mooy kii di muuru lu ko tax di muuru ndax su fekkee ne muuraay bi lu nekk rek mën na ko def lu morceau bi tuuti tuuti rek essentiel mooy na tegu sa bopp nga lëmas ko ci bopp bi dootoo xamati kii dëgg-dëgg lan moo ko tax di muuru fekk na mu ngi sol lu xataxat ndax tubéy yi la bu jigéen demee ba mën a sol baa wala jiin bu seere wala bodéem wala oo ba pare ji kol ne mu ngi koy teg ci boppam da ngay tiit da ngay wax est-ce que kii nekkul kuy kuy saboté fekk boo ko xoolee ba ci biir mënuloo xam kii lan moo ko dugal sax ci lii muy def kon jot na su fekkee ne xam nañ ne santaane yàlla la ñu delloo ko ni ko yàlla santaane ak ni mu ko diglee ndax ci loolu rek la ñuy mën a am fayu borom bi subhanahu wa taala te ñu xam ne li feeg muuraay bi condition yi ñu tudd nii dajewu ci muy dajale gi sa yaram yaatu bi fatt bi bañ a nekk taar ci boppam waaye bañ a nekk luy nuroog yëre góor bañ a nekk luy nuroog yëre yéefar bañ ko solu di gëttuwu ak parfum ba koo romb di ko attiré yooyu condition suñ ko remplirul duñu génn ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu mu ñuy jàngal ci xadisi abi hurayra sinfaani min ahli naari lam aram qawmun maahum siyaatun ka adnaabil baq yadribuuna biha nnaas wa nisaaun kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumilaat ruusuhunna ka asnimatil buxtil maaila laa yadxulna aljanna wala yajidna riaha wa inna riaha la yuujadu min masirati xamsumiati aam wa fi riwaayati min masirati kada wa kada kon xadis boobu léeg-léeg da ngay tiit yow jigéenu jullit bi yaa ngi muuru waaye ndax mucc nga ci loolu su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na ñaar ñaari genre nit yoo xam ne gis naa leen safara ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla rañaane ko yéege ko yóbbu ko wan ko safara ak aljanna mu gis ay nit yu ñuy mbugal ci biir safara mu ne bàkkaar ya ñu def ba tax ñu leen di mbugal moom tegu ci bëtam ci jamono bi muy dund kon dina ñëw dina ñëw ñooñ ñan lañ ndax du ñun kan la nañu xool yan critère lan ñan ñu nan lañu mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn groupe benn groupe bi ay nit lañ yoo xam ne dañuy yor yar yu mel ni geenu nag di ko dóor ñu gëm yàlla maanaam di mbugal ay nit yu gëm yàlla wa ma naqamu minha illa an amanna bi ayati rabbina tey ji ay julli rek la ñuy mbugal ci kaw suuf ndax gëm nañu yàlla waaye partie bi ñu andi ci xadis bi mooy wa nisaa mu ne beneen bi nag ay jigéen lañ groupe bi ci des ay jigéen lañ mu ne ñuñ mel mu ne kaasiyaatun aariyaat dañoo solu dañoo solo waaye dañoo rafle ndax nag bi ñuy wax sol mooy dañu ko doon def pour bañ a rafle sàng say awra loolu la yére doon jariñ libaasan yu waari saw aatihim yére yoo xam ne da ngeen koy nëbbee seeni awra waaw boo demee nag ba sol yére bi te sa awra nëbbootul loolu moo andi ndax lan cër bi ni mu toll wane na ko wala boog ni nga xam ne noonu la couleur bi mel wala boog la mu la doon dàqal ci ay loraange muccatoo ci tey ban jigéen moo mucc ci su fekkee ne muuraayam dang na wala yaraax na wala xat na mu génn fan la muccee ndax lii nga xam ne moo doon attiré képp koo xam ne rek sa xol feebaran ci dana ko attiré ci jigéen boobu ci la nga xam ne moom la sol kon sollu rafle dafay daal di ñëw mooy kooku nga xam ni yëreem yi lenn li nëbbu na li ci des nëbbu na mooy ki nga xam ne muur na boppam waaye loxo yëre bi fii la toll muur na boppam waaye yëre bi yaraax na muur na boppam waaye yëre bi ay couleur yi couleur moo ci nekk ay peri peri ñoo ci nekk muuru na waaye ku mu romb mu ngi xeeñ dem ba nga xam ne da ngay rëdd say tuñ rëdd say ba lépp bënn sa bakkan lépp nga def ko rek kon lan moo la taxoon di muur sa yaram dootoo ko xamati kon ma ni saa un kaasiyaatun aaliyaat sol ba pare rafle ñooñu nag kon lu mu leen di juril maa ilaatun mumilaat jigéenu jullit dafa am sama mag ju baax aji binta jaw yàlla ñu ko yàlla fayal yàgg naa dégg muy wax ne jigéenu jullit buy dox dafay dox lee noogaas noogaas waaye càppantati càppantati nga xam ne yow booy dox da ngay mel ni koo xam ne taxawatoo ci kaw suuf te moonte yaa ngi ànd ak sa muuraay da mais yëguloo ko ndax ni nga soloo mooy moo la dul fekk moo la dul aar da ngay daal di mel ni ñëpp rek dara wuutalewulaat ñi nga xam ne duñu ay jullit moo ñu nag ñooy ñi nga xam ne maa ilaat mu milaat dañuy jéng ñu ne dañuy jéng ci ni ñuy doxee wala boog dañuy jéng ndax toppuñu santaane yàlla waaye lu mu ci mënta doon mu milaat dañuy jéngalaat góor gu ñu romb rek attiré la moo tax ñaata nit yoo xam ne muuru nañ waaye góor gu ñu romb mu wax leen baat boo xam ne du leen neex yegg ci sax léegi tey da ngay mujj baat bu ñaaw bu nekk da ngay dégg ñu koy teg ci deru jigéen boo xam ne dafay muur yaramam mais fekk na mu muur wax mu ne jigéen ñooñu seen bopp ya mu nga mel ni boosu gileem bu jeng ngeen gileem ni mu bindool di nekk ci ginnaaw doq gi loolu kon am na lu ko waral xam nga bu njëkk dañ daan wax ni coiffure yeeg greffage yeeg yeneen yi tekete adduna ñu ngi gën a dox muy gën a tekki xadis bi tey ñaata jigéen yoo xam ne dañuy muuru mais ñu ngi jël lu ëpp kol gi lëmës ko ci seen ginnaaw bopp yi ba nga xam ne mënuñu sax tourner fu nekk ñu picc ko bu ñu tourner ah la ñuy wane ci seen ginnaaw rek dalay yéem kon lu usuhunna ka asnimatil buxtil maa'ila waaye li tiis ci melokaan boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox jigéen ñi mu ne laa yadxulna aljanna ñii jigéen du ñu dugg aljanna xetu aljanna sax nag du leen xëy yàlla ci yàlla sax kon lii tuutiwul jëf ji ñuy def ba tax jigéenu jullit du dugg aljanna xetu aljanna sax du ko xëy war nañ ko bàyyi xel te sóor ni noonu islaam yi duñu duñu duñu tàyyi duñu tàyyi benn yoon ci def ñu ñun ñu nekk ay jullit yoo xam ni du tur rekk mooy des ci ñun tur mooy des ci ñun mu mel ni suñu xoolee ngëneel yi nekk ci muuraay waroon nañ xëcc suñu kemtalaay kàttan pour dajeeg njëriñ yooyu nga xam ne moo ci nekk muy fadailu xijaabil mar al muslima ndekete muuraay dafa ñëw pour andil ñu ay ay njariñ pour andil ñu ay njariñ yoo xam ne ñu yëg ko ak ñu bañ ko yëg bi njëkk mooy ñu xam ne muuraay boobu taatullahi azza wa jalla wa rasul topp yàlla la bokk yi dara andi wuñu ci kaw suuf lu duñu topp yàlla dara andi wuñu fi lu duñu topp yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudu nit ak jinne binduma leen lu dul rekk ñu jaamu ma kon muuraay bi bokk na ci ngëneel yi mooy topp yàlla la ki koy def buñ ne la ku la ko sant bu ne sama sëriñ bu ne sama borom kër neel yàlla moo ma ko sant comme ni ngay jullee comme ni ngay oore kon lu am solo la beneen bi mooy siturun wa iffa daf lay couverture waaye daf lay ñoŋal soo ko defee ni la ko yàlla sante loraange du mën a yegg si ci yow beneen bi mooy wiqaayatun minal fitan fitna yi xew tey fitna ay fitna yu dul jeex ay agression yu dul jeex yàlla moo wax ne falaa yu udday naa su ngeen muuroo kenn du leen lor wax naa sànq ne loraange yi mën na nekk ci fépp nag ci bët ci loxo ci làmmiñ ci loo yaakaar rek mën na ko koo dajee su fekkee defoo lu la yàlla sant beneen bi mooy tahaaratun wa xayaa wa imaanun wa taqwallahi azza wa jalla jigéen bi muuru ni ko yàlla sante am na lu muy signalé mooy ne jigéen bi sell la dëgg-dëgg war nañ ko ko nangul moo tax yàlla ne bépp jigéen bu ngeen gis mu mel melokaan bu mel nii kenn warul a mën a am sañ-sañu yëkkati kàddu bu ñaaw di ko sànni ba tax nag mu teg sax nag ay daan ci ku fekk jigéen boo xam ne dafa sangewu kuy sàng cëram ku fegu nga mën ko sànni baat bu ñaaw mu ne kooku nañ ko caw ay yar bàkkaar la def waaye kon ñu wax ne kersa lay wane ci jigéen kersa nag baax na ci lépp waaye ci jigéen la raw te kersa ak ngëm yàlla nii la ñu bu ci dem rek day yóbbaale morom ma ngëm lay wone ndax xam nga ne yàlla moo la ko sant ragal yàlla lay wone ndax xam nga li yàlla xaraamal nga bañ koo def beneen bi mooy karaamatun wa xisnun wa ximaaya meññent yi ba tey mooy teraanga la bu la yàlla teral na nga am fierté bu rëy rëy ci boo muuroo bañ a am benn complexe bañ a am looy yëg ci ne yow mii am na lu la kenn yóbbul ci sa àdduna waxuma laa nag ëllëg sa kanamu borom na nga gëm am yaakaar ci loolu waaye tamit kaaraange la bu lay aar ci lépp loo xam ne mënoon na yàq wala boog mënoon naa nekk ay lor kon ngëneelu muuraay bu ñu ko doon topp du jeex mënuñ koo lim ay njariñam bari na te yaatu na njariñam daal mën nañ wax ne njariñ la loo xam ne société bi yëpp dañ koy yëg dañ koy dund ndax jigéen bu sàng ay cëram kenn umpalewul ne kooku dëgg-dëgg ku ko yor moo xam soxna nga yor ci sa kër war ngaa am yaakaar ci moom moo xam yaay la doom yooyu war nañu am yaakaar waaye moo xam sœur la tamit ay frère am war nañu mën a am yaakaar ci moom kon meññeent bi du jeex rawatina nag bu ñu ñëwee ci gi gis loraange yi nga xam ne mooy juddoo ci ñàkk moom yu am solo yii nag la noonu islaam yi xam ba duñu bàyyi gis ngeen ci ay jamono mu leen daan gêner lool jigéenu jullit bu muuru nga dégg léeg-léeg ñu wax France léeg-léeg ñu wax beneen dëkk ah voile lii mais léegi boo gisee sonnatuñu ñoom fexe nañ ba voile bi ñu def ko voile boo xam ni joué turulam ndax du voile bu leen di déranger voile boo xam ne moo ñàkk voile wu moo yem loolu déranger wu tubaab yi moo tax ñoom seen coow fi mu nekkoon dëgg-dëgg mooy dëgg-dëgg bii nga xam ne remplir na condition yi mais bu ñu demee ba muuraay bi fattatul yaatootul guddatul ah amul dara lu la différencier ak ñi nga xam ne muuruwuñ loolu du leen déranger kon nañu xam dëgg-dëgg li noonu islaam yi di xeex ci muuraay boobu ak di ko saboter dem ba nga xam ni boo koy def ni nga ko war a defee liñ lay njëkk a yëgloo mooy amuloo liberté lu tax ngay tegoo lu diis di lu tax ngay ngay ngay comporté woon nii lii yëpp loo la ci xiir xanaa tànguloo xanaa sonnuloo xanaa yow maanaam ay question yoo xam ne dañ la koy poser wala di la dugal ci yenn maanaam xalaat yoo xam ne boo amul fulla dëgg-dëgg pour nga mucc du yomb kon nañu xam bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne moom la suñu noon yi am te yàlla subhaanahu wa taala dafa waxoon ni waddu law takfuruuna kamaa kafaru fa takunuuna sawa ñoom neewoon nañ géej ngeen weddi comme ñoom ni ñu nekkee ay yéefar ngeen yem waaye yemul foofu mu ne walan tarda anka al yahuud wala nasaara xata tattabia millatahum juif yeeg nasaraan yi du ñu bëgg ci yéen lu du da ngeen na ànd ak ñoom bokk ak ñoom seen diine xam nga bokk ak ñoom seen diine du dem te nañuy duggee ci seen jaamu yàlla ya waaye dañuy dem ba bu ngeen bu ngeen toogee kenn du leen wuutale tey am na jigéenu jullit ñoo xam ne bu ñu toogoon nag jigéen bu dul jullit mënoo leen a xàmmee lu du dangaa laaj seeni tur kon nañu bàyyi xel ci pexe yooyu ak tamit yëg-yëg bi ñu diina di bàyyi loo xel incha allah ñu mën ci am ngërëmu borom bi subhanahu wa taala fi ñuy tëjee mooy yàqu-yàqu yi nga xam ne moom la ñàkk a muuru di def li jiitu mooy bi ñu nangoo ne muuru topp yàlla la kon soo muuru wut yaa ngi ci mooy yàlla il faut ñu nangu ko jigéenu jullit bu muurul yaramam mu ngi mooy yàlla mu ngi ci meru yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que attan nañ ko est-ce que attan nañu dégg meru yàlla subhanahu wa taala ci ñàkk a muuru ndax àdduna ak ay poñ itam te bisa ngi ñëw nag ak lu mu métti métti daañu muur te li lay won ne jigéen muuraayam lu lu lu maanaam lu sori la ci moom ba ci càngaay bi ñuy sàng néew góor ñetti càngaay rek daf koy doy jigéen danga koy sàng juróomi càngaay wala juróom-ñaari càngaay pour rek suturaat ko kon jigéen na bàyyi xel loolu beneen loraange bi mooy allaana wa tard min rahmatillah rëbb ak sori yërmande yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam dañuy wax ne lépp loo xam ne bàkkaar boo xam ne dafa am mbugalum muñ ci yàlla dige bu boobaa bàkkaar boobu du bàkkaar bu tuuti kon ñàkk a muur sa yaram du bàkkaar bu tuuti du lu yomb du du loo xam ne war na oyof ci dund ci ji yëg-yëgu jigéenu jullit bi ñetteelu mbir bi mooy taxallufa suqut fil hawiya deltu ginnaaw ak doyadi gu jigéenu jullit bi daf koy am te du ko yëg ndax li koy may dëgg-dëgg mu am personnalité bi mu war a am mooy nangu gi mu nangul boroomam tey am na ñu bari li leen di nax mooy dañu foog na bu ñu sàngee seeni cër dañuy dañuy mel ni seeni valeur day wàcc wala ki déedéet te foofu la ñuy tardele seen bopp foofu la ñuy wàcc seen bopp foofu lañ leen di foyee di leen caaxaanee dootuñu jarati dara ci kaw suuf kenn dootu leen fonk kenn dootu leen yëg dañ leen di jëfandikoo rek ba doyal bàyyi leen beneen bi mooy zihabul xaya inda al mara mooy dafay raxas day fomp kersa soo demee ba muuru safu la itteelu la na la leen ne sa kersa tam noonu lay roccee koo te la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek ida lam tastaxi fasta ma chita soo demee ba rusatuloo mën nga def lu la neex loolu mooy daal di am li ci topp mooy yàqu-yàqu yi nga xam ne moom lay jur ci jikko yi ci biir société bi ci njaaloo ci jaxasoo góor ak jigéen gu dul jeex ci laamisoo ci ànd boo xam ne bu xaraam la buy tasaaroo ci société bi góor di bànneeku ci jigéen te dafa ci dërëmam moo xam ci ay bëtam la moo xam ay kàddoom la moo xam dafa dem ba yegg sax ci jaar ak moom ci fu xaraam ndax la woykat ba waxoon rek nee na njaaloo du tëb tëb rek doon njaaloo nee na dafa am fu muy jaar nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun summa kalaamun fa mawidun fa liqaa nee na bët bi la koy attiré ca la ndaw sa sol ak na mu mel ak xet ga mu xeeñ mu ne bu boobaa nga xool ci ndoxu kanamu jigéen bi loo ko yabee mën a wax ak moom mu nangul la léegi nag wax joojoog laamisoo baak nuyoo baak foo dëkk rendez-vous fa lay amee bu rendez-vous amee nag nee na luy xew fa lay xewee te nag ku nekk xam na loraange yi am ci njaaloo tey kenn nattableetu ko bokk na ci li gën a yées li nga xam ne tey àdduna bi yëpp nangu nañ ko mooy feebar yi gën a bon yi faagaagal nit ñi ci njaaloo la jógee ko te li gën a doy waar mooy virus bi nga xam ne mooy évoluer ci yaramu doomu aadama di bàyyeekoo ci njaaloo du màggee lu ci yaramu nit moo tax am benn boroom xam-xam bu ci taalif téere tuddee ko ne al amradul jinsiya uqubatun ilahiya feebar yi nga xam ne ci wàllu sëy lay jógee ko mu ne punition la bu yàlla defal doomu aadama ndax gëstu nañ xool mbooleem virus yi nga xam ne dafay jógee ko ci jàngoroy sëy soo ko yóbboo ci mala du def ci moom dara waaye ci doomu aadama rek lay évoluer kon yii yëpp am na lu mu ciy jànge yàlla dafa andi woon muuraay muy kaaraange ci jigéen boo xam ne daf koy aar mujj kon nañu am pastif ci loolu am taxawaay ci loolu waaye suuxat ci sunu bopp waaye jéem tamit fexe ba li ñu wër mu jar ni nga xam ne noonu la tey ñu bari di def di campagne di yëgle di sensibiliser jigéen ñi pour ñu xam ne lii yàlla andi di muuraay dafa nekk teraanga pour jigéen teraanga pour àdduna waaye teraanga tamit pour alaxira ñu teel ci mën a suuxat suñu njaboot yu jigéen yi ci bi ñuy lu tuuti ñu màggaaleek moom gimmeek moom ba mu nekk lu bokk ci ñoom loo xam ne suñu ko deful la ñuy yëg ne am na lu leen manqué kon ci foofu lañu leen di jéggaloo di baalu xaq ndax ñàkkul li ngeen séentu woon ci waxtaan wi sax mën na am dajewu leen ak moom waaye ñuy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp xëy ñu ci boppam ba ñu mën a jariñu ci li nga xam ne moom moo di ay santaaneem mën a daw ay tereem naqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu